donc euh, li ñu fi dajale tey euh, nekkul que ni d'abord di jégalu ci incident yi fi am ndax euh, benn waaye rek moo ko créé koo xam ni non la voté woon sax ci ci ci ci référendum bi mais heureusement fa mu nekk dañ ko faa gagné ba tax na loolu lu ñuy ñaawle te ñaan nag parti bi mu jël ci ay sanctions ndaxte kat yu mel nii dañuy bañ mu am feneen feneen fu mën di doon Sénégal parce que sax nag d'ailleurs statut ak règlement intérieur parti bi. am na ci loo xam ni am na ay sanctions yuñ prévoir dans ce sens pour bépp militant boo xam ni def nga ko jalgati nga ko ci doxinu parti bi maintenant li ñuy tey jii jeunesse Tivaouane département Tivaouane dañ tase pour wax ci ñetti mbir benn ci actualité bi réalisation yi nga xam président def na ko fi et puis ñuy ñaanal également bon peut-être que certes lim fi at yim fi defagul bari mais ñëpp jàpp ñëpp seede nañu ni président li mu fi def. ñi fi jaar sax defuñu ko fi en si peu de temps et ñu ngi koy ñaanal chantier yooyu mu am pour Sénégal lépp yàlla may ko tey gum ko àggale ci muy la à travers le plan Sénégal émergent nga xam ni boo ko te boo ko PSE le plan Sénégal émergent boo ko tekkee ci olof daf lay jox pexe ngir suqali Sénégalu ëllëg P pexe S Sénégal ëllëg donc bu ñu jëlee sémiologiquement moo bi loolu lay tekki beneen bi mooy ñuy euh, fàttali di ak di indi ay réplique ci loo xam ni temps yëpp yéen a ngi dégg ci à travers les rajo ak télé yi président moom Idriss sekk topp ci président naan président lii président ma bëgg leen xam ne président du moroomam ci dara du moroomam ci lenn du nawleem parce que moom bu muy nekk moom xamul sax lu xew ci réew mi parce que il n'est pas présent Thiès ga mu dëkk sax bay teew moom la am la am hôtel Saint James loolu la gën a xam que li xew ci réew mi et bu ñuy wax ay diil moom foo ko fekk waxu xaalis lay wax waxu diil ak waxu nguur mais xamul ni nguur yàlla moo koy joxe nguur moo ko jalal mu jonkan fii suba ëllëg mu demaat fay jonkan fa fu ne mu dégg fay loxo mais xamul Sénégal du doxee noonu Sénégal ci yar ci discipline ci xam-xam ak ci bëgg réew mi ak koo xam sa so yi tey bopp sonal sonalu la loolu ku mel noonu lañuy ñuy dénk suñu réew di ko wax nag ni na bàyyi président parce que moom président bokkuñu leen moom def na kaso président deful kaso moom mi ngi judd avant les indépendances président mi ngi judd après les indépendances président ingénieur la moom nee na auditeur la donte diplôme bi mun leen koo won def na kaso président deful kaso moom dafa dañ koo dàq PDS président dafa génn PDS kon donc président 23 juin fii la ko fekk mooy 23 juin fekk ko ci réew mi kon donc côté boobu ñoom ñaar. du sax moromam gagné na ko ñaari yoon nekk na ak Ablaye Wade Macky président Macky Sall nekk na ak Ablaye Wade directeur de campagne am gagné ko en 2007 comme candidat ñëwaat également nekk candidat gagné waat ko en 2012 kon donc je pense que ah, euh, ñaari nit yooyu amuñu benn amuñu amuñu ci lu leen tëxale président du naw leen ci dara beneen bi nag mooy kaw Ousmane ko moom obligation de réserve maanaam booy tere bépp fonctionnaire mu déconné wala bépp fonctionnaire ca la ngay liggéey. info xibaar ya nga cay am information yi nga di ko génn ci place publique bi loolu loolu article quinze ak quatorze da koy tere yooyu yëpp daf ko koy tere kon donc à ce niveau on lui rappelle qu'il doit qu'il doit qu'il doit avoir raison garder pour que au moins bon voilà yooyu di bañ a am 500 cas Abdou Mbaye nag temps yëpp moom mu ngi wax d'ailleurs sax dégg naa placé nañ ko sous contrôle judiciaire ma leen di rappeler moom fee yi ñu koy toppee. c'est parce que en 1996 moom dafa takkoon benn soxna kooku médecin la mu signé woon pour monogamie ensuite il avait signé la le régime de la communauté des biens maanaam bokk alal mu dem ba ci biir mu bëgg am beneen soxna tax mu jël papier yooyu falsifié ko pour mën a pour mën a def loolu loolu nag lañ koy toppee moo tax bu ñu naan nit ñi dañ naan politique nekk ci gannaaw dara la nekkul ci gannaaw que nit la boo xam ni dafa doon trahir jabaram. di ko nax ba yu mel noonu fekk ca donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam